bismillah coow la day ah jeex na xeex ba tamit jeex na day laaste joomaay day tas na assemblée nationale ar day taali ar day taali waaw waaw alaaji Malick Gakou day ah nee na lu am te baax day bu amee ñëpp ko war a rafetlu dëgg la njiital grand parti day waaw nee na dogal bi nga xam ne kon njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di koy ko parce que nag décision la woo xam ne ça s'impose aa ah, ah, waaw waaw lu war a mën a nekk la ngir ñu mën a jubbanti waat grand parti yemu ca déedéet ndaxte nag nee na gis nga ba ñu tour la ñu bëgg daal mooy un changement systémique loolay dëgg les si ko yéene kaa ne tasu assemblée nationale boobee day waaw joomaay daal dinay jébbal na quatorzième législature bi lée boroomam rey na ko de la waaye jàpp na élection yi ñëw fukki fan ak ñaar ci weeru laa la wax bii ñëw waaw waaw waaye ndem si yàlla groupe Benno Bokk Yaakaar waaw ñoom daal jàpp ne gis nga Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi lée daa wax waxet maa di taali Abdou Mbow ak akay ca robookum ne li gàcce la sax mbong mbong lu muus muus lu gu laqu ci gàcce gu rëy honteuse di përi ca robookum ne bu dee am na élection boo xam ne dañ koo war a organiser daar daar dama ne élection présidentielle la ah waaw waaw parce que gis nga joomaay mi ree ndekete tàngal benn chaise daal la fi nekkee déet waay ca robookum ne akay ah, joomaay fay laa daa war a démissionné jugee fii yoro jaa ah, waa kon Ousmane Sonko daal nii lañ koy bàyyee muy violé constitution ko ca fekk les assemblée bi de waaw yàq wa day joomaay teg na ko ci kaw waa bennoo de maar de taali waaw waaw président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne ñi nga xam ne ñoo gën a bëri ci assemblée nationale gële majorité parlementaire ba waaw ñoom daal dogal bi ñu jël mooy bëgg-bëgg sénégalais yi lée du fi amee li sénégalais yi wax ci 24 mars 2024 waaw ñu ne du fi amee te ñi doon wax ne moo nit ñi mën nañoo falu ba pare député yi tamit liggéey collaboration bu dëggu daal di am ca assemblée loolee ndeke gént la woon rek Diomaye Faye ne assemblée nationale laa la wax daal di delloo askan wi nga xam ne nag ñoo moom cër wi seenu cër ngir ñu mën maa jox jumtu jumtukaay ngir coppite yi nga xam ne kon moom laa leen digoon day ma mën koo def je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise te man Diomaye Faye président jàppale na kon jébbalaat naa askan woowee seenu cër ñu daal di àdduna ci Assemblée nationale gi lée ngir coppite yi nga xam ni moom la ñu bëggoon le 24 mars 2024 wala bu dee nag maanaam dañoo bëgg ba léegi ni lée nguur gi daaneel nii lam fi woon bañ askan wa nag kon kàddu gàngo président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moomee waaw jàpp leen ne organiser na élection député yi di ñëw dimanche fukki fan ak juróom ñaar ci weeru novembre 2024 ñëf jaaxaar rek président xale tribune yéene kaa ne Diomaye ak de politique générale ba ak tasum assemblée nationale googee waaw li ñaaw na ci loxol président ñaaw na est-ce xam ngeen ne conseil constitutionnel fukki fan benn ci weeru juillet la bindoon président Diomaye waa bennoo nee na dama ne classe politique beeg société civile beeg ñëpp a war a jóg ngir ñu mën a sauver Sénégal gi lée nga daaf ne waaw sur quotidien ne président Diomaye day lañ doon dana am ak doo am ba mu amee na mu def dama ne la suspense bi ci boppam la Diomaye jeexal ni ki démb laa la wax yi ne kaa ne fukkeelu législature bi lée ak ñeent ba waaw daal di ne daanu këpp na Diomaye rey na assemblée ba daaneel na ka Thierno Alassane Sall day ah ne wàllub naxaate wàllub naxaate rek Malick Gakou le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi a jël waaw dogal bu baax la et puis dara sax nag mais askan wi loolu la ñu wax le 24 mars xam nga dañ naan jaam ak pexeem yàlla ak sa aane waaye fii xam nga lan moo fi am Diomaye pexeem Sonkoog dogalam ah waaw waaw Diomaye propose Sonko dispose eh waay Samba yow déggoo li Diomaye wax Diomaye nee na bi ma ne déclaration de politique générale le 13 septembre 2024 la nekkul ne dama doon dóor bi de déedéet waaye boo bee wàllu bu yoon laa a a ne même doon tey sax joomaay mi lée loolay ko woon a jóg jàpp leen ne premier ministre am Ousmane Sonko day moom xamle woon na bu yàgg ne du dem jàkkaarloo dem si yàlla député yële waaye fa mbir ma jeexee daal njiital gouvernement bi di premier ministre ba day moo am dëgg ci kaw digéewu président bi waaye déet waaye akay ah waa Benno Bokk Yaakaar ne déggoo leen ñu de dama ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye daa wàccu lekk ka parjure la def wax waxet jot ay ndigalu premier ministre a gi ni lée tojaangeewu bu ñu toll ci kaw askan wii mais lii mi ngi doog am mais yéen xoolal leen ma la citoyen Ousmane Sonko njiital Pastef nga moom daal ay bëgg-bëggam daal la jiital ci kaw institution yi lée ba ci présidence la république laa la wax bugaan ngay dani ne yorin gii nag kon nañu def kon mobilisation bu rëy nationale ngir ñu respecté nag yi lée di constitution bi ak institution yi waaw l'observateur ne tasub assemblée nationale bi lée waaw lambi golo ko jóg daanu golo yaa moom lambi rigolo maanaam ay naxaate la quoi a président de la république boo xam ne day daa wàcculee kat wax waxet ngir sauver ab premier ministre am laa la wax joomaay mi lee ak sonko sonko joomaay joomaay mooy sonko waaw ñoom daal seeni sacrifice mbir mi jaral na leen lu ne nañu jàpp ne nag gàkk-gàkk bu ñuul tache noire ci gouvernement bi lee ci yorinam bi waaw jàppal ne bii da koy topp bay laa yow mi diin yéeni kaay groupe Futurs Médias gi ne xam la féetee yi nga xam ne am na ca ben ñaar milliards yi nga xam ne tam dañ koo fas yéene organiser nag élection yi lée ñetteel ba nag l'observateur nee na est-ce que yéen ngeen ne député yi lée dañuy continuer di fayee ku ba léegi ni lée continuer di jot seeni essence ba léegi ni lée te liggéey ku ñu dara é eh waay samba waaw Walfadjri ne Anta Babacar Ngom day waaw moom tam ma ngay woote de cohabitation la woote na opposition bi jóg taxaw ngir am ay député yu bari ci assemblée nationale gëlé Anta Babacar Ngom ne waaw parce que nag waxtu yi dafa jot ngir ñu jàkkaarloo ak lànk pour dire non ci nga xam ni kon moom la ñu nimiku ni lée jaay doole ay dérive autoritaire maar di taali yoo xam ni moom la ñuy di togg de critique yéene kaay ne quinzième législature bi day ni mu juddoo mitti na la juddoo ala wax di nga juddu par force waaw parce que Diomaye nee na le 17 novembre bi lée les élections di am yoor yoor yéene kaay ne président Diomaye day daal dinay jekkali na nguuru Macky Sall ga dama ne la achevé na leen jekkali na nguuru Macky Sall ga les ko yéene kaay ne conseil constitutionnel day dogal bi mu jël waaw élection député yi di ñëw ñëf moo ni njaga si laa day giseewul noonu de bés si la journée déclaration de politique générale le 13 joomaay day daa xotti signature am laa la wax aha joomaay signe contre sa signature le quotidien yéene kaa ne kay la sonko bëggoon def na ko aha waaw waaw mais xam nga lan moo gën a garaaw libération yéene kaay nee na mais député yi moom dañuy continuer di jot seen salaire di continuer di jot seen essence ba keroog ay député yi bees di ñëwaat eh way samba eh, joomaay day xam le na ni ki dem ah ne yorin goo xam ni moom la fi nguuru Macky Sall gi yoree woon alalu réew mi de ca lañ leen dénk yorin goo xam ni sëñ bi ay mbiram oyof nañ lool waaye ci lay mar di tali waaw waaw tax na ba li ñuy fay ci salaire kenn xamul lii lan la bor yi nga xam ne moom lañ bàyyi ci biir réew mi de kenn xamul lii lan la ay subvention yoo xam ne nii daanaka dañoo dem ba kenn maîtriser tu ko ay dérapage tojaange yoo xam ne mar di tali ba tax na président joomaay day nee na waaye lépp ko situer kan moo def lan kan moo def nag ci wàllum administration bi lé ëttu politique bi lé lépp dina leer li leer ba leer mooy coowal Cheikh Oumar Diagne waxtaanee nañ ko ca Tiwaawoon de waaye Tiwaawoon ñoom lu ñu jàppoon daanaka bàyyi nañ ko ndax yar gi nga xam ni kon moo nekk ci président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sagesse ca jamono joojee murit yi ñoom ñoo neen duñ bàyyi de ñoom dañuy marché de dañuy marché de ubbil réew mi quotidien nañu waaye préfet bu Ndakaaru waaw tere na kon Serigne Modou Mbacké Bara mi déposé woon kon ne dañuy marche ca Masaalikul Jinaan préfet noonu marche boobu du am tey courant bu coupé tribune yéene kaay nee na doy na waar Sénégal démb dama ne la askan wi ci boppam sonn nañu génn xeetuk sonn koo xam ne nee nañu jafe-jafe yi day OMVS la ma jambal jaañ ne du dëgg lii Sénélec wax ne kon moom moo waral courant bi coupé démb loolu gëmuma ko man ma jambal jaañ bëccëg bu lëndëm dee moom la ñu gis démb waaye jomaay dee lu mu lëndëm lëndëm dafay xuus jaar <laughs> jàpp leen ne mbir mi dee démb ak lu mu lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm bu leen fàtte ne suul gaz du ko tere xeeñ dawi taxulaa rek ndax sonkoy jomaay te jomaay mooy sonko boo paree mën a la alaaji tëjal